yàpp caade eh danga sa téléphone danga jóg toog déglu li ma lay wax yow caat bu ma la béjee di nga ñibbi seen kër ba dellu si waat dama yaay eh. li ma dugg yëpp kii moom ci dugal caat ah, moo fi ñëw fi naan ay affaire sociale kenn xamul ba tey li ma dalee ma dal ba yow xam nga ne ku ñàkk fayda ngeen yow moom daam meloo woon nii waaye léegi dangaa yàqu yaxet yaxet nga toppal ma kaane bii rek xaw kaana la xaw ma lu mu doon. ngeen it bu ñu tegee ndogu ngeen wax ay waxi dof ay waxi dof man xamatuma affaire lu mu mën daam yow lan la tey jii ku la ne woon jabara ngi nga ne doom a ngi nii daam man kañ nga may respecté man joxoo ma cër de waaye yow sa bàyyi mais lu mu wax danga koy def ndax dangay dem. dañ ci ànd waaw yow man ak yow ci kër gii nga may toj gàcce chaque jour. yaay yëpp bàyyi naa ko. kii ni ngeen ni def loolu ko mënee seen tante mi loolu ni ngeen ko def nag. kii dafa ñàkk fula. lépp moom xool ma yaay. yéen ñaan ñii da a yàq nekk ci kër gi lu nekk ngeen def ko fi. yow laajuma la. say beer dëgg la yaay yow caat mënoo tëj sa gémmiñ gi yow. yow sa ñàkk jom ba ko kanam mu ñaaw bi. yow sa war na la xanaa ba nga jaaree sa cuur mu defar sa bopp bi laal sa kindi. sooy lu sooy da ngaa xam. koo xam nga man maa ngi leen xool simi ko simi kam simi. bëri jaawale la. waxal sa doom ji. lan laay wax ci kii yéen ñaar ñëpp laay waxal ndax yéen ñaar yéenay ànd guddi ak bëccëg lu nekk ngeen def ko ci kër gi. man kenn nawlootuma yow moom sa papa lu muy wax ci kër gi dëgg na yow dangay dem doo fi toog ak man. ma de yow xam nga ne meloo woon nii. kon ne di nga di nga dem de. jaw di nga dem de. caat bu la ne woon dugalal sa sa sa loxo bi ci taal di nga ko def. damay lakk. waa léegi léegi caat na di la jiital ci mbedd yi di la def loo yu bon nga koy ànd ci biir kër gii. dafa ñëw di ma jëm waar. Eh, dimbali ma laa la wax. dëgg de amul dara. Eh, laajuma la yow noppil yow noppil ndax boo jógee seen kër ñëw fii man maa fi sa yaay man maa fi sa lépp ngeen di nekk ci mbedd mi lu nekk ngeen def ko fi pour lan loolu caa. nga yaakaar ndog bi may ndog fi ak lii tax ngeen yem kon du ma gàtt ñuul ñaaw pare bu koy ah. wax rek. bul génne ma nga ah, xool. yaay seen ginaar yi seen simple ginaar yi moo tax ngeen bëgg maa yem. suñu simple ginaar yooyu moo gën seen kër gën ginaar yi ñëwuma ba ndog si. damay ñëw bàyyi faal bi poñe ma fi. yow képp ku ma yab rek yow. ma ñëwaat nga jël boobu mi toog fii di ma xas naan ma sa ginaar yee sa yii nii yow nii la. yow la de du moom nii. dana la ba doo si lekk. loo ci mën a lekkee ndax yaa fi def tag-tag ñëw di ànd say photo andi say vidéo eh, eh. nu ñuy ndogoo sama jëkkër ji fan yëpp amul lu ma yàqul mm. amul lu ma yàqul ndax yow. yow daam yow lu mën a bëgg a wax. jàmm ak salaam.